والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع بالله سخر الدم مباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أثنيه ولا مسه mën nañ koo amati mënatul am ci àdduna man moom mënatu ko am ci àdduna man mënatu ko am te kenn mënatu ko am ndax dañ da danaan dañu daan yee di ñu yeeteel di ñu toppatoo di ñu toppatoo ñu surveiller bàyyiwul benn doomam ñëpp la yemale woon même d'égalité Papa coon kenn mënatu ko am àdduna nag moom moo ñàkk ñun ñàkk nañ te dootuñu ko amati ilaa yow mi diini ci àdduna man nag yan kàddu nga ñu wax si Papa Thione nan la meloon ay njabootam. ay njabootam da leen toogoon yiir leen man bu may demee bay julli di jaamu suñu borom yàlla jëmmam moo tax saa su ne bu ñu baalee ba pare dañuy naan dem leen ngeen julli ji dem leen ngeen defi ji lii mosul bëgg ñuy def affaire bu bon wala dara saa su ne rek mu ñuy teg yoon bu baax amul benn doomam boo xamante ne jaar na ci naka sudul noonu muy ñi mu jur ak ñi mu jur kenn xàmmeewu ñi mu jur ñi mu jurul la gënoon a téye que ñi mu jurul muy ñii ñu koy jaare di ko jaale àdduna di ko jaale Sénégal gépp parce que dootuñu ko amati ci àdduna ñun ñàkk dañ ba pare dootul amati ci àdduna yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana yi fii daw si barki Seydina Mohamed barki Salatul Fatiha. tur bi naka la Xadi Diallo laa tudd waaw. ba pare moom moo ma tuddee woon naan ma Xadi ma daal woowee ku ma xam rek xam na ma ndax Papa Thior barki Seydina Mohamed mu nekkoon nit ku baax nit ku simple. Mm. mais amatul ci àdduna dootu amati. ñun nag dañoo ñàkk ba pare. dootu amati barke Seydina am. jërëjëf jërëjëf Khadim ñoo ngi lay masawu bu baax a baax Khadim balaa ba ñoo ngi lay masawu. bariyatu atmau aya jamiu alxayrat ya malja alwara fasilni bi hablin la yura yataqattau la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illallah Muhammadu rasulullah. def ci musique nga pare wëlbatiku woo xale yëpp woo say morom woo ñëpp woo ñi nga xamante ni sax kenn mosu xam ci àdduna nga woyloo leen pour nit ñi xam leen ba pare ne xaalis boo ci am di nga ko sédd ak ñoom ndax da nga ànd ak ay musiciens fay studio fay lépp defar lépp. ñëw ne képp koo xamante ni ñax nga ci def nga ci sa ñax boo paree man man Thione Seck man ngi lay sédd nga am ci vingt cinq pour cent kon kooku li mu def noonu nit la boo xam ne kenn dootu ko fàtte may xamal tamit ni sénégalais yi ñàkk nañ koo xamante ni barki yonanti yàlla Mouhamed ñàkk nañ ko ku ku rëy xam nga Sénégal moom bala ñu laa xam rek il faut nga dëdd mais heureusement ba yàlla dimbali nañu ñun mosuñoo wax ci moom lu ñaaw te doon nañ koo xamante ni tamit dañ koo yàgg dégg waaw mais demu Thione Seck bett na Sénégal bett na Sénégal yëpp ñëpp la bett parce que imagine toi am na ay projets yoo xam ne dañ ko nal man ak moom ak samay moroom man ma defagum ñaari morceau laa defagum ak moom fii laa ko defee ci kër gi ma mu dese ma benn li ma desee benn ci laa ñëwee ne ko dese na ma benn dem na sax ba fàttali dese naa benn ci la ma woowee benn journée il faut ñu clip benn ci laa ñëwee ñu clip biñ clipee yàggul dara fan yee passé la ma woowaat téléphone di ma laaj ne ma yow abu ñaata morceau nga woyee ko xam nga mu doon koo xamante ni yàlla rek la ma tiim billaahi Thione Seck mooy artiste bu mag boo xamante ni Sénégal mel ni moom ngay woo rek mu décroche téléphone am billaahi wallaahi wal kitaabi ngañu ma ngañu ma benn artiste nag kii c'est grand yi ñoom ñëpp a baax mais billaahi mel ni moom ngay woo téléphone rek mu jël la ba ñun ndaw yi nii des fois dañuy woo sax ñuy bañ bañ la yaa ngi dégg may wax rek na ñëpp roy ci moom te saa saa su ne mooy li may wax man samay wax boo xoolee samay wax depuis 2009 ba léegi li laay wax na artiste yi booloo ndax am na ñoo xamante ni tey pour nga génn àdduna ñu ñëw sa dëj da leen di diis ndax bu ñëwee am na benn bët bu ñu leen di xoolee te loolu yàlla nañ ci yàlla musal mais koo xamante ni ci ay woyam boo ko dégloo rek dëgg yàlla mel na ni jaale nga ko parce que da lay delloo ci yàlla te ki lay delloo ci yàlla ki lay delloo ci yàlla daal amul morom comprendre nga. tey jii jot nga liggéey moom am na lu ngeen nasoon waaye yàlla mujjul nangu loolee antu mais tey ndonoom li mu ngeen ko fas yéene gàddoo yéen. non man def naa deux morceaux parce que ku nekk ñetti morceaux ngay def man def naa deux bi ma defee deux daf ma dese benn ci biir benn bi nag moom da koy fàtte sax des fois mais woo na ci diggante ba def loo ma clip clip bi génnagul te li ma ci gën a marke mooy maam ñi ci bokk ñëpp ñu ci bari ñooy ñëw maam pare pour clip mais man moom moo ma wool boppam mais man xoole yëre yi nga bëgg sol billaahi wallaahi wal kitaabi loolu kay mën naa ko seede mu woo ma boole ma ak online Tidiane waaw ne ma comme Wally dafa tukki demal ci Tidiane nga xool li nga bëgg sol imagine toi yëre artiste day sa keroog boo fa demee di jël damay jël nekkul ma mu ne ma yow jël li nga bëgg a jël saa yi Thione daal wax dëgg yàlla yàlla muy baale yàlla na ko yàlla jégal kullu lu sa a def ci àdduna na ko Sénégal yëpp ñaanal kilifa diine yi bu ko kenn fàtte nan ko ñaanal njaboot gi mu fi bàyyi yàlla neen yàlla taxaw parce que tamit bon exemple bi mu joxee ci adduna tax na doomam di ko roy muy Waly. la Waly du taawu Thione Seck. waaw am na mag. mais boo xoolee actuellement nekk na nit koo xamante ni mi ngi mel ni moom moo mag ñëpp. waaw parce que ñun ndaw ak ay moromu baayam ñëpp lay dimbali te Thione Seck dégg naa ci lii la dëkkoon comprendre nga muy nit koo xamante ni. ñun waa Pikine daal ñu ngi koy jël comprendre nga parce que tamit man taxaw di ndamu rek naan Thione Seck Pikine la dëkk. waaw loolu loolu dafa ma doon neex. waxuma laa mu jël ma invité ma yàlla yàlla boole ma ci ñi mu woo ci album bi nga woy ma woy ma ci moom ay vidéo yoo xamante ni tey su ma ko tegoon Sénégal ñëpp ay jooy parce que damay woy mu toog ci 16 heures naa ma abu li ngay woy baax na coon ko yàlla jërëm tax ci am sax doomam amul may wax ñëpp ñëpp nañ koy ñaanal yàlla jërëm ko xaare ko àjjana yàlla na rek a ko bokk waaye damay wax ne àddina bépp ko bokk tey jii réew mi ñàkk na koo xam ne mën naa ko témoin ndax ba muy sol flottant la ñu ba tey mu nekk borom kër ma bokk moom nag lu ma bokk la kenn ci réew mi ndax na koy ngoom yaayam ruba joom a ko jur ki jur ruba joom ak asu joom mi jur Serigne Ndiaye ñoo ko bàyyi sama bàyyi bokk benn bàyyi may ni jaayam man ñoo ko mu am nag loo xam ne tubaab daf ko wax dafa ne quand je vois un enfant jouer je sentis deux sortes de sentiment le sentiment de pitié de ce qu'il fait et le sentiment de respect de ce qu'il ferait mu xamoon loolu à bas âge man maa ko xamaleeg Alaay Yinde Fall man la Alaay Yinde nekk ca banque ba bay yaawoo di fa liggéey ma nekk métteer di ñawee ca Sandaga mu dikk na ma dama bëgg a organiser ca Pikine te xaw ma kan laay jël ma ne ko ñaari xale xew Thione Seck Mor Dior ñoom ñaar ñu bokk benn baay Cheikh sekk jur kii Nogoy Ngom jur ko kii Ndey Michel Lam jur ko ñu bokk benn baay mm-hmm. ala yinde ba ñu paree ca spectacle boobu la ko coon taq mane ne perte na ñaar ndax senegal perte na waaye tey ngéwél perte na parce que damay wax ne lépp lu coon way bu ko doomu aadama dégloo mën caa jariñu te woyoon na bés yi ba muy laata dem jamonoy tey jii dee du fi gëj ma wax leen li war bés bu ne doomu aadama war nay solaare rabu samaawaati maa fi ard mu doon protège dañ ko jiñ kaye waaye nit ki la war lan moo tax ñuy jiñ doomu aadama protège protégé woon na ay bokkam lu ma xam parce que ci la bokk protégé na ak njabootam dogal na li nga xam ne moom la un bon sénégalais bu ne war a nekk ci yow muy un bon sénégalais du wax lan la ma réew mi liggéeyal waaye danaan lii laa liggéeyal réew mi kon Thione bokk na ci ñi liggéeyal réew mi formé nañ defar boole ay doomu aadama ba kenn ku ci ne tey mën a jariñ sa bopp benn ci doomam ju baax yi nga xam ne yal na ko yàlla la fal cat sama set boobu yal na gudd fan sut baayam nag coon aw fan sut maamam Cheikh aw fan coon tey ngéwél gépp ko jooy ngéwél ñàkk na bokkum ñëpp ngéwél ñàkk na ku bañ a dégg-dégg bul déglu coon ndax la vérité est le de Dieu donc disons la vérité mais tu dois ne porter préjudice tey ji daal ñoxo bay mi jàkkaarloo presse bi di wax ak yéen ñàkk naa koo xam ne tey xam naa fa ma féete woon te fi ma féete du alali àddina de waaye cër ba mu ma joxoon respect ba mu ma joxoon barki démb rek la ñu daje cër dëju du sec capot ba ma ëgsee daf ne sama nijaay ñëw na ñun kenn amatu ci kàddu moom rek ay wax ma di ko jàll Ablaye Naar di ko wax nag yàlla sasaat na ko beneen sas bu weesu ba mu ko sasoon di ko jaar ñoom moor joor di ko jaal képp koo xam ne bokk nga ak coon di ko jaal Sénégal di ko jaal nag la président de la République parce que damay wax ne wax naa ko léegi un bon sénégalais danaan lii laa liggéeyal réew mi waaye du na lu ma lan la ma réew mi liggéeyal di leen ko jaal nag yéen waa presse bi parce que damay wax ne dafa am loo xam ne Sénégal yàlla daf ko fee def te yàlla def leen ay ndaw te ñetti waxkat rek am ñetti waxkat am ci àdduna ma wax leen ko yéen waxkat yi ki ñu loo ki war wax ak ki wax war ki ñu waxloo bëgg-bëgg ku ko waxloo rek lay wax maa dootuñ ko waxloo ki bàyyi métier yëpp choisir wax ne waxkat laa bëgg a doon na càmbar la muy wax ba bañ caa ba naan boo ëllëgee ngeen jéggal ma ñun ñi wax war nañ nañu seet liy defar te du yàq liy ñaw te du xotti waaye li tegu ci dëgg ci siraatikal mustaqim ndax loo wax di nga ko waxaat télévision yeeg rajo yi bari na waaye njariñ li bariwul njariñ li mooy ñiy wax dëgg bariwul bu ñu ja bu ñu nëbbu xale yi xale yi nañ leen wax ne ñooy suñu relève ëllëg te ñaar ñii ci yéen lañ ko yaakaar ci yéen lañu yaakaar diine ji ci yéen lañ yaakaar réew mi moo tax yal na leen yàlla lafal cat Sénégal yal na fi yàlla def jàmm coon nag ñu ngi koy jaal senegal gépp di ko jaal nag sama bopp parce que yàlla def na ñoom ñii maay seen kilifa kon yéen waa presse bi yal leen yàlla jàppale defal leen jàmm may leen wér waaye daal tey ngéwél ñàkk na koo xam ne dootuñ ko am ci àdduna barke Ahmadul Xadim parce que euh, boo nekkee mbokkum ñëpp ba pare loo wax defar lay doon loo def defar lay doon loo wax ci dëkk rek nga koy teg yal na ko malaykam yërmande teeru monument ñun moom ci pionnier yi nga xam ne ci musique sénégalaise ci la bokk mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo sos musique sénégalaise de manière générale ba mu koy sos nag lu tuuti la parce que boobu mi ngi nekkoon ay star band yu kenn xamul ñu da ko daan segal sax tabure ndax ngir tuutiwaayam pour mu mën a jot micro yi yàlla def àdduna di dox di dox di dox ba ñu dem mu jógee star band dugg dem orchestre Baobab Baobab nag fa la defee liggéey bi gën a am solo ci culture sénégalaise man du wax musique parce que musique benn côté rek la mais moom culture waxuma non seulement musicien mais artiste la artiste nag du nekk musicien rek da ngay nekk musicien ci instrument ci woy nekk tamit artiste ci doxalin ak jikko dafa nekk nit ki nga xam ne rassembleur la woon amul benn musicien wala artiste fii ci Sénégal bi nga xam ne nekkook jàmm ak Thione loolu nag ñun ñi nga xam ne ñun artiste lañu ay musicien lañu nekkoon ak moom ba nekk ak moom ba tey jii sax ñi nga nekk ak moom euh, am na ñun li nga xam ne dafa diis lu jóge ci ñun daanaka bu fekkante dañu ne nittu nitu lëmb la nit ko taxaw ah dina dañ ñaari tànk ak benn ci loxo yi la ci des bareetul waaye ñun danañu góorgóorlu incha allah jàppale ko parce que li mu bàyyi fii muy jikko dinañ ko sàmm di ko dawal ba nga xam ne àdduna bi yëpp dinañ ko xam xam naa ne xam nañ ko waaye ñi ngi sant yàlla bi nga xam ne yàlla dogal kenn mënu ci def dara incha allah bu neex yàlla dañ euh, koy nañ koy ñaanal rek te nag dem na moom yaram wee fi dem waaye xel meeg jëmm jeeg lépp mu ngi ci ñun ñii parce que suñu xel boo taxee coon ngay gis boo defee dara coon nga ciy gis booy wax dara coon nga ciy gis ñu ngi leen sant waaw man la Mountaga Kouaté. Mountaga hmm. Kouaté ñun ñoo nekk Baobab. Hmm. defe naa en 74. on nous appelait les Benjamins du Baobab. donc moi c'était mon ami c'était mon frère. on se partageait tout. morceau boobu ñu naan sëy sëy si la ma ciy woy man. te sëy mooy fétiche morso fétiche bu coon sec. coon ba ñuy ànd boobu ay xale lañ. coon ba ñuy ànd. boobu amuñu dara ñu nekk ci orchestre Baobab nekk ak suñu mag ñi di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom di ànd ak ñoom ba yegg si ci benn année boo nga xam ne moom il devait former son ramadan noonu la téye sama loxo ne ma nañu dem ñu bokk ramadan man mi mii bokk naa daan ci premier élément wu ram ramadan ci laa bokk ñun ñoo jëkk a tëgg ay balagoog ay tous ces ñun ñoo ko jëkk a joué bi ñu demee ba ci biir nag il fallait qu'il prenne son chemin parce que ñun dañu waroon dem en France bi ñu woñ euh, bi ñu demee moom il fallait qu'il reste si la ñu demee moom mu ñëw nag mais Thione jàmbaar la il s'est prêt il s'est frayé son propre chemin fii la commencé ci dara dem ba gis le bout du tunnel man wóor na ma il a fait chanter presque tous les musiciens du Sénégal c'est icône la kii bind na livre ci moom ñu naan ko Manu Diop waaw Thierno Kouaté mu ngi noon nii à côté xaw ma lu ci mën a. Thierno Thierno war na mën ci am waxtaan parce que ñoom ñoo nekkoon number one. Mm. waaw star band boobu ñëwagul sax boobu ba. voilà ma bàyyi leen ak Thierno. asalaamaaleykum euh, Thione moom Moutaga li mu wax yëpp c'est c'est vrai Thione bi muy jëkk commencé c'était au Miami ak euh, Ibra Kassé keroog bi mu Ibra Kassé soxlaa pour ma ñëw Thione moom mu jël donc c'est une très yàgg na dañ daan nekk yàgg na trop boobu ñu gën nekk xale donc euh, lii tey dañuy ñaanal ko yàlla mu xare ko àjjana parce que Seydina Mohamed parce que métti na trop mais mënuñu ci dara volonté suñu borom la ñu koy nangu rek dañu ko yàlla xare àjjana macha allah. kii nag duma ko présenté kenn ci Sénégal ndax foog naa ni ci Raamdaan la bokk li nga xam ne rek mooy euh, yor li nga xam mooy marimba Waly euh, orchestre Raamdaan bu Waly Ballago Seck muy sëñ Fallou Ndiaye euh, Benjamin Benz nuyu naa la waaw maa lay fay aram naka mu ngi ziar bu wér-wér waaw lay jaale sa nijaay di la jaale sa papa di la jaale sa lépp ñu bëgg rek nga wax ñu tuut ci Thione Ballago Seck waaw moment bii de moom foog naa mënuñoo wax lu bari mënuñoo wax lu bari ndax euh, comme li nga wax rek suñu nijaay suñu papa suñu idole suñu sëriñ suñu lépp suñu tiitër waaw moom moo waral lépp mënuñoo wax lu bari dañuy sant yàlla rek te ñaan suñu borom teeru ko ca àjjana ya gën a kawe wane la ko ak Seydina Mohamed ndax jullit piir la jur na doom tuddee Seydina Mohamed yàlla na ko Seydina Mohamed fay te teeru ko waaw. Ah, foog naa ni sëriñ Fallou Ndiaye Benjamin mooy wax ni ginnaaw bi nga nekkee ci li nga xam ne rek mooy Ramadan musique bu Wally Ballago Seck coon di sa nijaay ak xam ndax ku ne xam na ne nijaay mooy yaay coon Ballago Seck ak sa yaay bokk nga nekk li nga xam ne mooy jarbaat ci moom directement amul intermédiaire tey yan jikko nga ñu mun a seedal ci nga xam ne mooy sa nijaay bu ñu fi dëddu léegi waaw mooy li ma jullit la te jullit rek mooy lépp jullit la jur na doom tudde Seydina Mohamed waaw ñun moom ñun moom rek lañ xam moo ñu dugal ci lépp dëgg yàlla lépp moom la waaw dañuy ñaan suñu borom fay rek wane la ko Seydina Mohamed maa ngi siyaar ñëpp di bëgg ñëpp ah li wax dëgg yàlla lii fi xew tey. xëy na xool yëpp tooy nañu waaye santaat yàlla bu baax di julli ci yonente bu tedd bi nag di sant suñuy waay jur di ñaanal coon yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko fa mu tëdd tey yàlla na ko mu jigee nit ku baax la woon ñun ñëpp bokk ci njabootam mu doonoon koo xam ne wax dëgg yàlla ku ko ku ne ci waa ci milieu musique nga ko xam waaye mu daan loo xam day yeete loo xam day jëmale xel yi ci kanam kon nag fa mu tëdd tey yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko ay bakkaaram waaw man wax dëgg yàlla li ma mën a def si papa Thione mooy nit ku baax la ndax loolu laa xam ci moom bu ñu musaan toog moom daf ma bëggoon moom ba ma xam ne man daf ma bëggoon kon nag maan bokk naa ci njabootam di ko ñaanal nag yàlla yërëm ko ndax lii rek lañ ko deseel fee mu tëdd te yàlla na gënal fii mu jigee li ñëpp doon xaar papa ka ma doon xaar yegg si na kon nag nag ku ne xaar sa bos te xam dina yegg si yow àdduna amul benn solo lii rek ay dëgg gis nga tey nit ñi fi dajaloo kon nag ku ne war ngaa ñëwee papa Thione ndax lii mu am tey jii ku ne ñaan nga yàlla am ko ñun ñii sax dañuy ñaan yàlla am lii mu am tey jii yàlla na ko yàlla yërëm jërëjëf kontaan na jërëjëf. fi mu jóge yàlla na àjjana mais dafa am tey nga gis nga dafa am loo xamante ni tey perte sama waajur wu jigéen perte naa sama goro bu góor perte naa sama mag xam nga donc damay dëgër dëgër mais bi ma gisee waali daanu laa mënatul téye sama bopp parce que ni mu mel ni mu mel waaw ni mu mel ci papaam ak man ni ma mel sama papa sama papa yàlla na fi yàgg lool ci weer donc métti na ça fait mal ça fait mal mais yàlla moo ñu moom ci moom la ñuy dellu gëm naa ni waal symbole bi papaam yoroon dina ko jël téye ko yàlla na Sénégal yëpp am jàmm ci barke Seydina Mouhamed ñi gaañu ci ci ci problème yi fi amoon bi passé yàlla na leen suñu borom yërëm te xaale leen àjjana Sénégal jàmm ci la lépp xaj barke Sëñ Fallou ñun xajuñu ci benn problème yi dal suñu kaw nii ci weer bi yàlla na fi géej ci barke Seydina Mouhamed yàlla na fi géej sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér jërëjëf Serigne Touba jërëjëf. direct yi baax mbokk internet yi ki ñu taxawal ba tey muy El Hadj Keita nekk moom it ah, xale bu mën ni muy def ah, ci li nga xamante ni ci la Papa Thione nekkoon ah, du ñu def rek lu mooy bàyyi ko moom it mu wax ñu yëg-yëgam ci bés bi El Hadj ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu média bi yëpp di leen masawu parce que ñun ñëpp ñoo am naqar di wax Papa Thione man ak moom fi ñu jaar dafa sori waaw dafa ma defoon comme doomam daanaka penc mi man la ko njëkk jox ci jeune talent boo xam ne mu ngi doog a ñëw bu waali demande Europe man lay jox penc mi ma joué man tamit maa ko njëkk a joué le premier parti 31 décembre kon sama digganteeg moom ba pare ba muy génnee album dafa ma woo pour ñu def six morceaux man ak moom ñu def six morceaux yoo xam ne daanaka ñaar rek génn yeneen yi sax génn kon sama diggante ak moom dafa dafa dafa dafa prochain trop moo tax tey aw am naa naqar waaye bu yàlla soxlaa jàmm day ñàkk waaw di ko jaale doomam yëpp di ko jaale ñoom Mouhamed ñoom Waly Malick Seck di ko jaale suñu yaay Mama Kiné di ko jaale famille bi yëpp ak Sénégal parce que Sénégal mu ñàkk Papa Thione monument la woon waaw te yàgg na noo dimbali man particulièrement El Hadj Keita man la njëkk jox penc mi ma joué mooy waxaat loolu te ba ma koy jox metti na trop parce que boobu maa ngi doogay jóge Mali ñëw rek mu jox ma ko wóolu ma ah album bi di génn tamit man la jox kon tey am naa am naa tuuti na mais sant yàlla. Euh, yan kàddu nga mujj a weccanteeg waaw kàddu yi ñu mujj a weccante mooy ndaysaan ba mu ba mu gañee procès bi man la njëkk mu gañee procès la njëkk penc bi man maa gagné procès bi te incha allah def ko ni sa kër ko ni sa moo tax waaw ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaaree àjjana jaajëf merci.